waaw li ñu wax mooy li ñuy wax rek c'est-à-dire il y une commande politique il fallait exécuter cette commande politique parce que certains dañu naan ñu wéy pertoon na ay droit am ci Mame Mbaye si on revient sur l'histoire de Mame Mbaye les gens ont l'habitude de dire c'est entre deux citoyens non je dis c'est entre un homme politique et un ministre de la République un ministre de la République il est payé pour avoir bon dos su ñu nee ministre de la République détourné na ou supposé na détourner c'est à ce ministre de venir montrer à la face du monde montrer à la face des Sénégalais que moom laalul suñuy deniers publics parce que si nos deniers publics c'est pas un citoyen lambda boo xamante ni dafa dem jëli xaalisu jaamur wala wala leneen de la même manière ce procès ce qu'il en a li nga xamante ni gis nañ ko tribunal dem ba fin bi à la fin à la toute dernière minute et on se rappelle même El Hadj Diouf le la partie civile dafa meroon ci requalification des faits aujourd'hui su fekkoon ni procureur exécuté wul euh, commande boobu tey waxul waxu corruption de jeunesse c'est-à-dire que kon le, le procès aurait accouché d'une souris ce qu'on aurait di mooy il n'a pas violé et puis c'est terminé donc pourquoi à la fin c'est pour dire que Ousmane fale essayer avec le procès Mame Mbaye Niang bogo bogo ko ba mu jeex pour diir que perte na ay droits ñëpp jàpp ne donc léegi procès bi amatul enjeu parce que l'enjeu c'était politique tout le monde savait que dañ ko fa yóbbu peut-être pour perdre loo ko ay droit am benn pour yàq daram ñaar malgré ça xëy na les gens ont dit ok c'est-à-dire que na dem procès pour mën a en tout cas wan à la face du monde que ça c'est un complot d'État mmh. et bi ñu demee on a vu ce qui s'est passé et à la dernière minute le procureur sachant que lii ñu fi teg nii yëpp amul dara loo xamante ni mën naa dugg ci bopp nit donc mu ne naa naa naa naa seet beneen prof ndool te mhm. prof ndool boobu tout la suite comme je l'ai dit tout à l'heure hein le fait de barricader Ousmane Sonko chez lui c'était pour se préparer à ça pour pouvoir le prendre et l'amener en prison loolu moo ci ne amul leneen d'accord